asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 dañu koy tàmbalee ak transfert Paris Saint-Germain jëlee nañu ci taskatu xibaar yi ñuy xam ne kat dal dinañuy boucler transfert ki nga xam ne moom la ñuy wax João Neves nekk gone gi doon football ca Benfica nga xam ne depuis transfert yi ubbi ba léegi Paris moo ngi koy topp waaye nag dafa xaw a cher moo tax ñu gis ne mbir mi yombul woon ci ñoom wax nañ leen fan yi leen Renato Sanches dañu koy able foofu li nga xam ne mooy ca Benfica moom ne nañu bokk na ci transfert bu ñu sukkandaku ci yenn ci taskatu xibaar yi ki nga xam ne nag mooy João Neves dina négocier seen diggante Manchester City ngir jot ci ki nga xam ne moom la wax João Cancelo jëlee nañ nag ci taskatu xibaar yi ñoo xam ne ne Barça li nga xam ne moom lay sàkk mooy ñu abalaat ko ko beneen at waaye abal googu sax mën nañu jàpp ne ab jënd la ndax ñu ngi xam ne ne juróom-ñaari millions ñu ngi koy xaar ci mbir moomu le pour benn saison 7 millions de livres sterling plus li nga xam ne mooy 18 millions de livres sterling obligation to buy maanaam euh, obligation d'achat lay doon bu fekkente ne saison bi jeex na loolu lañ jëlee ci taskatu xibaar yi voilà loolu nekk mbir moo xam ne kat xëy na déggoo amagu ci waaye jot nañu ne mën nañ ci am ndam juróom-ñaari millions ngir ñu abal leen ko bu saison bi jeexee kii di Joao Cancelo du delluwaat foofule waaye dañu koy jënd ci fukki millions ak juróom-ñett bu fekkente ne Manchester City accepté na li nga xam ne mooy offre boobule ki nga xam ne nag moom la ñu wax Mctominay nekk jour Manchester United moom kayiti xibaar dañoo xamal ne kat ca Galatasaray jamono bii la ñu koy seentu ndax Galatasaray day ñu ngi def waxi pexe ngir daal koy signé waaye nag ñoom li nga xam ne moom la teg ci taabal ji moo wuutee lool ak li Manchester di laaj ak ñett la teg ci taabal ji ñoom waa Galatasaray waaye nag ñu gis ne Manchester mu ngi xaar lu toll ci 25 de livres sterling ngir bàyyi ki nga xam ne moom la ñu wax McTominay nekk Scottish midfielder voilà moom wax Scotland la jamono bii nag mu nekk joueur boo xam ne njort nañu dana fa jógee ndax kat li nga xam ne mooy temps bëgg dem waye Galatasaray fi mu fukk fukki million ak ñett lañu téggogum ci table ji ñuy xol ba xam lan moy doon li nga xam moy réponse Manchester United ci mbir momu Habib Jara mom ci Everton lañu koy sentu mom itam mom mi nga xam mo ngi ci Strasbourg gannaaw bi nga xamee kat ñi Everton signé nañu bu yagul ki nga xam moy Iliman Ndiaye mo fekk ji ki nga xam moy Idrissa Gana Gueye benen doomu Sénégal mën na leen di fekk fofu moy ki di Habib Jara bi nga ñaar fukki at la am ci jamono bile wala lool dal moy xibaar bi nga xam dal nañu koy jot kon bu fekkenté lool soti na mën nañu gis ne kon ñi di wa Everton mën nañu fa am ñetti doomu doomu Sénégal muy Idrissa Gana Gueye Habib Diarra ak ki nga xam ne mooy Iliman Ndiaye loolu moom mooy seen Sénégalais dem leen supporter Everton ndax loolu bu amee moom ñu bari dinañu tuxu wala bokk ñu boolee ci équipe yi ñuy baral faral di bàyyi xel voilà moom kii di Habib Diarra mbir moomu nag sotteegul comme dañ leen wax ne gars ci kawam dinañ wéy di ko topp bu dee am na leneen lu ci bees dinañ ci dellusiwaat Lazio de Rome bu toll ci 20 millions d'euros ci Arabie Saoudite ñu gis mbokk yi ne foofu ñoo koy woo ngir mu daal dem fekk leen foofu le waaye nag boobaak léegi amagul dara lu ci bees Lazio nag ci Italie la nekk fii ci Europe ñoom dal dinañu teg offre bu toll ci ñaar fukki million ci xaalisu euro plus li nga xam ne mooy boo xam ne dinañ ko bàyyee Barcelone ci ay droit wam maanaam bu fekkente ne ñoom Barça accepté seen yooyu itam ñoom dinañu séddoo ak ñoom li nga xam ne mooy droit yi gone gi maanaam ëllëg koppar te ñoom 40 millions d'euros fi mu ne nii moom la ñuy xaar ci ki nga xam ne mooy Victor Roque 40 millions d'euros voilà léegi nag kon genn wàll ga lañ leen tegal ci taabal ji waaye nag pare bàyyi leen li nga xam ne mooy genn wàll ci ay droit am mbir moomu dinañ wéy di ko topp ki nga xam ne mooy Mohamed El Neni bi nga xam ne égyptien la nekkoon foofule ca Arsenal moom nag dal dinañuy xam la ne jamono bi dal dinay jógee foofu la nga dal di signé ji la ca Girona Dortmund njëkk toll ci vingt cinq millions d'euros loolu ay ci transfert boobule mbir mi lépp dal dinañ koy ndar képp maanaam li des rek mooy mu dal di dem def visite médicale xaatim li nga xam ne mooy ab contrat am voilà loolu mooy li nga xam ne moom lañ jëlee ci taskatu xibaar te loolu nag ñoo ngi koy jàpp ne dina am ci li nga xam ne mooy semaine bi lé kon ci semaine bii la ñuy xaar loolu lépp ñu daal koy ndar képp voilà déggoo am na ci diggante City ak ñii waa Borussia Dortmund mu jëm ci gone googu ñuy wax yaan Couto Iker Bravo bi nga xam ne ancien joueur Real Madrid la ca gone yàlla nekkoon moom nag nee nañu fi ne nii ci Italie dem dal di ji ak club bi ñuy wax Udinese moom nag ñu fàttali leen ñii di waa ko woon maanaam xëy na abaloon nañ leen ko waaye delluwaat na ci Leverkusen léegi nag Leverkusen googu ñoo ko jaay équipe bi nga xam ne moom la wax Udinese nekk foofu la ca Serie A bu Italie loolu nee nañ transfert la boo xam ne sotti na moom nag a baax bobu nga xamne jexal kalau nañ ko barki dembu wala mom ki di Iker Bravo ki nga xam ne nag moom la wax Amara Diouf moom jëlee da nañu ci taskati xibaar ci ne daal li nga xam ne mooy opération boobu nga xam ne war na koo amal ci Espagne nag la koy amale ca Barcelone bu fekkente loolu daal dina yemb mën a toog juróom benn benn weer jàpp juróom-ñeenti weer voilà juróom benn ba juróom-ñeenti weer danañu mën na koo toog balaa muy dellu si ci terrain bi moom kii di Amadou Diouf l'international sénégalais loolu nekk xibaar boo xam ne neexul benn yoon ndax gune gi comme ni ma leen ko waxee yaakaar bu bari lañu am ci moom te war a toog daanaka atum yàlla wala lu ko jege te football loolu mooy li nga xam ne daal nañ koy jàngat ba tey ci taskatu xibaar yi kii nag ñu ngi koy wax Lamine Diack moom nekkoon na ca turki ci ay jamono waaye at yi mu ngi woon foofu la ca France ak équipe bi di FC Nantes delluwaat na ca turki waaye nak dañ ko fa able bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi ci club bi ñuy wax Hataya Sport Hataya Sport lañ ko able moom ki nga xam ne voilà moom la ñu wax Lamine Diack Ataaya Sport nag ancien club bu kii di Mame Birame Diouf la nekkoon na fa ci ay jamono jamono bi foofu la ki nga xam ne moom la wax Lamine Diack dal di signé moom doomu Sénégal bi lee gars moo ngi noonu loolu mooy li fi gënoon fees way leen di topp Sen Sport